asalaamaaleykum presse nationale internationale c'est bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu askan wi man la honorable président Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly njiitul coalition nekkal fi askan wi nekkoon candidat élection présidentielle 2024 ginnaaw bu ma santee yàlla bu baax sant si Ahmadu Bamba Xaadim Rasul tey jii mu nekkoon benn suur boo xamante ni journée historique la woon ci en tant que doomu daara nekk ku tudd Cheikh Abdou Mbacké dëkk Touba nekk njiitu coalition nekk fi askan wi déposé woon candidaturam ci conseil constitutionnel ñu waroon ko saytu tey mandataire bi jóge fa léegi ñëw rendre ñu compte ñu ne amuñu sañ-sañ nag toog di xaar ba suba te waxuñoo askan wi nga xamante ni mënuñ leen a fay ñoom ñëpp kenn ku nekk gis nañ taxawaay bi mu taxaw si ñun ñi nga xam ñoo doon ñaanal aussi gis nañ lépp ñuy jàppale séparation gis nañ ko di sant bu baax suñu mandataire demb mi ak ñëpp ñoo xamante ni tey ñoo yëngu woon ci mbir mbir mi nag boo gisee mu am man bettuma parce que Macky Sall moo bëggul Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nekk candidat en tant que doomu daara en tant que dëkk Touba ndax li tax mooy xam na ni bu ma nekki candidat bokk naa si candidat yi nga xamante ni ñoom ñooy daane candidat candidat bi mu tànn muy Amadou Ba ndax xam nañ ku gagné région du Diourbel gagné dakaar gagné feneen ak feneen yaay gagné Sénégal te département Mbacké mooy département bi gën a ëpp population ci Sénégal kon tey bu suñu mandataire génnee nii conseil conseil nee nañ ko da nga am ay li nga xamante ni. mooy ay nit yoo xam ne nekkuñu ci fichier électoral bi loolu du dëgg loolu buñ ko waxee du dëgg ndax ñun bu ñuy parrainé dañoo jël maanaam ki ñuy parrainé laaj ko photocopie d'identité mu jox ñu ko nit nag mënu laaj sa photocopie d'identité mu am carte électeur nga dugal ko maanaam ci biir ba pare ñu ne la yow ki nga xamante ne moo am carte électeur am nekkul ci fichier électoral bi loolu yënuwul maanaa te amul mu toll ci quinze mille 694 yoo xamante ne dañoo wax ne Cheikh Abdou Bara Dolly ci li nga déposé woon 50 891 yi loolu mooy li nga xamante ni nekkul ci fichier électoral bi te ñoo ñëpp li ma si gën a naqari mooy ñu si baree bari la lañ dëkk ndax 8000 yëpp Touba lañ dëkk mooy kon ñu dëkk Touba tey jii may wax ñu si baree bari ñu ngi dox yor seen électeur bu élection jotee du ñu dem bu ñu demee du fekk seen tur ci li nga xam mooy fichier parce que Macky Sall moo bëggul Touba seen nekk si parce que xam nañ day perte foofu noonu. leen li si mooy bu fekkee dañoo wote loi boo xamante dañoo wax ne képp ko am doublon danaa war a daan ñu ni ma am nga doublon externe yoo xamante ni mi ngi toll si 23 357 mooy ñi ma njëkk déposé man li ma déposé ñoo am na 23 000 yoo xam ñoom jeesaa ñoom euh, euh, pare nañ leen ba pare loolu du dëgg leneen li xam mooy gën a garaaw mooy boo demee Tambacounda nga xam man naa ko def exprès Tambacounda sama ñaari mandataire ñoo fa nekk muy titulaire ak suppléant ñaari mandataire ñu ne ma kenn ki pare na loolu la double externe la est-ce que loolu yenn maanaam bi ma leen woowee léegi sama kër ñoom lan ma wax mooy waxuñu dëgg parce que sama carte seen carte d'identité joxuñu ko kenn tey ñu ne ma ñaar ñu nekk Tamba nga xamante ne say mandataire kenn ku nekk tutélaire kenn ku nekk suppléant tan pare nañ ñoom ñaar muy ñaari mandataire kese nga xam ñaari tur laa def foofu Tambacounda région de ñu ne ma ñaar ñooñu kat kenn ki pare na wu la kon li ñuy wax lépp dara si dëgg lii nag maa ngi doon wax yenn policiers yi nga xamante dañoo waxoon ni fichier bi ñu du ko wedd mais fichier électoral bi ku si dem Macky Sall da lay gagné fiche électorale baaxul maa ngi woo opposition bépp ñu jóg taxaw pour masser xeex euh, li nga xam mooy fiche électorale bi ñu wut fiche bu baax boo xam moom la ñuy jox ñu mën dem élection buñ ko deful ku dem élection Macky Sall da lay gagné damay wax li Abdoulaye Wade waxoon 2019 fiche bi fiche Macky la parce que deux fiches lañ yor bu leen neexee ñu génne fiche bu baax bu leen neexee ñu génne beneen fiche bi Macky lu yàqu si réew moom moo ko yàq man nag sama ambition ci réew mi du Macky Sall moo ko mën a baare pour xañ ma parrainage dinaa fexe xeex tout ba keroog may faatu dinaa ko fexe jëlee ko fi agressivement parce que dafa toroxal Sénégal dafa toroxal askan ndax man gis naa ne ñi ñu bàyyi ñu jàll ñëpp candidature tey kenn ku nekk xam na ne maa li ëpp dayo politique maa li ëpp moyen politique maa li gën a jege askan wi ñooñu ku nekk leer na la mais moo choisir ay candidat ndax dafa wax ne juróomi candidat la war a bàyyi ci yeewu askan na ngeen bàyyi baax li ma la bàyyi ci yeewu askan wi pour que watu yeewu askan ñu bàyyi ak ñeneen ñu bàyyi waat ngir que maanaam fexe ba nga xamante moom dana sàcc élection a jàll looloo du ko danañ waxtaan nag fan yi di ñëw ñun ak coalition nekkal fi askan wi ba lépp loo xam ne war nañ ko jël si ay décision dañ ko jël ba baare route bi Macky Sall bëgg teg pour sàcc élection yi 2024 teg fi ku fi neex pour continuer dictature daan ko def parce que nii mooma baaree démb si guddi dégg naa ñu daan baare Ousmane Sonko même noonu am na beneen candidat bu mag buñ baaree ko buñ bëgg baaree comme noonu kon li ma wax mooy askan nañu jóg taxaw jonn xam ni lii xeexu population bi la du xeexu Cheikh Abdou du baaru ndax lii amul complément mooy rese nan la c'est que dañ la fekkonte ne dañ laa wax ne lii nekkul loo xamante ni mi ngi si biir fiche bi mais lu nekkul si fiche électorale yow noo mën a xam nekkul si fiche électorale xam nga maa ngi doon dégg sama benn collègue Bougane Gueye Dany doon wax naan fiche bi baaxul mais fiche bi baaxul. mais am nan am nan ko yoo xamante nekkul si fiche bi mooy ñan koo xam ne war ngaa woote am sa carte électeur sa numéro électeur ne si nga dëkk Touba ñu ne yow bokkoo si fichier bi mooy wan ni dañoo bëgg seppi ñi nga xam ne jàpp nañ ñoo leen mën a sonal pour que ñoo man daal waaye ñoom sama yéene ci réew mi ak sama gis-gis réew mi ñoom tuuti nañu si pour que baare ma dinaa continuer xeex bi ma doon xeex pour jëlee fi Macky Sall ak ma parce que moo toroxal moo toroxal askan wi ñëpp ñoom mën ànd dinaa ànd ak ñoom pour Sénégal am ndam réew mi am am démocratie loolu ñu ngi si kanam incha allah merci